Nous avons ñu daje des classes décision depuis lors pour commander un tableau pour accompagner l'inspection d'académie Je profite de remercier aussi disponibilité de l'inspecteur, le inspecteur Diop pour sa collaboration avec le conseil départemental muy lu conseil départemental depuis que nous avons créé ba option l'éducation euh, et la santé mais beaucoup plus sur l'éducation Lolo nak am nous ci taxawaay bu am solo ndaxte ba ñu tàmmalee ba 2015 2019 li ñu si dugal si xayma soo à peu près 230 millions c'est réhabilitation et construction salle de classe ren nous dañu opté non seulement pour def euh, réhabilitation à construire salle de classe pour un montant de 112 millions mais nous avons aussi accompagné accompagner écoles en matériel Lolo, indi ñu commandé 500 tables-bancs euh, gunge leen aussi si condition yi nga xam ne ne euh, mbas mi mu ngi ci dëkk bi té ñu nekk ci ouverture de classe ñu joxaat leen beneen dotation complémentaire de 14000 euh, masques ñëpp xam nañ né bi école tëjee ndax mbass mi ba muy ubbi aussi conseil amna nu mu taxé woon pour accompagner inspection d'académie mais loolu yëpp si suñu vision la bokk moo tax ba déwén si budget bi nga xam ne ñu ngi koy waaj a voté lii si ëppawaat solo si si investissement dañ ne dañuy continuer waat doter euh, inspection euh, d'académie ñu prévoir renforcer les noix mille tables bancs, mais surtout jëndal leen ay matériel informatique ay matériel de reproduction ndax ñëpp xam nañ système scolaire li ñu gën a soxla tirage donc loolu def nañ aussi suñu prévision te yaakaar naa ne dès que ñu voté suñu budget euh, peut-être balaa at mi di jeex sax di leen joxaat dotation Le projet la boo xam ne ne yàgg nañ ko dawal amoon na phase test euh, bi ñuy wax euh, part donc Amopar projet la est lié à la si à SICODEV GRDR nous ñu jàppale ñu financement de près de 400 millions Nous avons nak, ndax jot pratiquement 265 millions de mètres en œuvre mais nous avons lu ñu avons compléter aussi dañ si liggéey ak inspection d'académie orientation sur la base des résultats des écoles te gis nañ ne cantine yi mu euh, résultats parce qu'il faut installer cantine scolaire élèves yi nga xam ne ne dañ daan ñibbi di dox di am añ ñëwaat toog lekk seen résultat yi dafa gën a amélioré donc loolu aussi ñu bëgg ko tas ci département bi am nañ ay communes yoo xam ne taxaw nañu déjà pour accueillir ay cuisine centrale comme la commune de Yène beneen cuisine centrale bi ñu ngi ko nar a def euh, lycée moderne euh, si école su ubbee nii lay tàmbali loolu tamit ñu ngi rafetlu collaboration bi nga xam ne ne am nañ ko ak suñu partenaires yooyu ndax AFDS moo ko jiite Euh, si ko def AGRR mais surtout avec l'inspection d'académie, d' académie nga xam daf ñuy gunge vraiment si euh, kii boobu liggéey boobu nga xam ne ne euh, war nañ kaa tàmmali rek. jotaay bi ñuy dund nga xam conseil départemental moo ñu fi woo dañuy jox ay table banc yu ñu war a ci école yi may wax ne man en tant que inspecteur d' académie dama koy rafetlu di ci bëgg mais aussi di wax askan bi ne leen lii du loo xam ne lu bees la. parce que conseil départemental dañuy wax compétence transférée mais ñoom day lu ñuy dund te buñ toogee ba tey ñuy ubbi école génn ci examen yoo xam ne résultat yu baax la ñu war a dem sixième gën a bari ñu war a dem seconde gën a bari ñuy xaar ku ñu jàppale ci école bi mel ne conseil la ñëw na man ay tablement lay indi kooku mën naa ne moom moo xam fuy metti te foofu la teg loxoom parce que pare nañ pour accueillir kuy réfectionner ay table ay ay salle de classe di tabax di la wutal kooku wan na la ne mën ngaa dalal ñi nga xam ni dañuy egsi

yu jóge BFM war a dem seconde te ñooñu xëy na du ñàkk ñu fekk fa ay table banc parce que dina am ñu admis seen CM2 ba dem ñi admis dem baccalauréat dem seen yoon mais ñooñu ku leen war a xaar ci loo xam ne musu fi am ndax résultat yu baax yi war nga xam ne am nga soxla yaay table te jàpp naa ne jéego bii conseil départemental teg bu ñu amoon ñaar ba ñetti moroom moom daanaka fi tënge duñu waxati dara